ربي بما يسره أذهب الفجر asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu monsieur le préfet maa ngi lay nuyu yaa délégation yi nga àndal te ñu ràññi ci sous préfet Darou Mouhty ak mbooleem chef de yi nga xam ni alaaji jaajëf tudd na leen léegi ma ànd ak njaboot gi di nuyu ci turu sëriñ bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xaalif général des Mourides xam nga ne sëñ Moustapha mi ngi ci yoon yi moom mi nga xam ne mooy suñu mag di taawu kër gi jiite liggéey bi wante ginnaaw sëñ Cheikh Mbacké mu sëñ Sidi mi ngi fi ak sëriñ Bara Lahat ak sëriñ Sidi Mbacké Abdoul ak sëriñ Khadim Moustahine ak njabootu maam Amar Fall Mbakke te ak imam sëriñ Cheikh Kajoor jiite ko nekkal fi sëriñ Abdul Xuddus ànd ak sëriñ Mbakke mu sëriñ Abdul Xuddus sëriñ Baara Matile itam mi ngi nii moo itam euh, sëñ maam Thierno sëriñ Lamine teewal ko fi sëriñ Cheikh jëmm xalif général de Baye moom it wax sëñ Babacar Mbow mu ñëw teewal ko fi waa hôpital Matlaboul Fawzayni itam PCA bi suñu nijaay Alaaji Ahmadou Fall di taalibe kër gi ànd naa directeur général bi Amadou Gueye Diouf ñëw teew fi sëñ Malick Ndiaye fi di jëwriñ ci kër gi sëriñ Moustapha Seye ak kër yi nga xam ni dañuy ñëw di ñu jàpp ci màggal gi lu mel ni daayira wilaya daayira Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xam ni ca jamonoy sëñ Mbacke soxna loo ba léegi dañuy ànd ak ci organisation màggal gi ak daayira Hizbut Tarqiyyah sëñ Adou Diagne jiitu ko mu yebal fi délégation moom itam bokk ci ñi taxawu màggal gi am na daayira Cheikh Mouhamadou Ba Sadul Awraad moom itam ñu ngi fi sëñ Abdou Aziz Lo jiite ko daayira sëtaati Cheikh Mouhamadou Lamine Bara itam sëñ Abdou Karim mu sëñ Khadim Moudou Bara ak Mouhamadou Lamine ñu ngi fi ak commune Touba nga xam ni premier adjoint au maire si Sidi Mbacké ànd ak Serigne Birane Gueye ñoom ñi ngi fi commune Mbacké Kajoor moo jël kàddu léegi Serigne Pape Ndiaye bi nga xam ne moo dañoo bokk ci kër Serigne Bara Serigne Lamine ba Bassirou Khoudia moom yabal na fa rakkam Serigne Moustapha ak président am lépp monsieur le préfet kon ñu nuyu la ci turu Serigne bi nuyu yi nga àndal ñëpp sant leen gërëm leen sant gi itam ñu ngi koy tàmbale ci yéen tàmbale ko sous jaar ci yow monsieur le dem ba ci gouverneur ak mboolem chef de service yi nga xam ni ñi ngi ci arrondissement Darou Mouhty wala département Kébémer wala région de Louga sant leen ci li nga xam ni dañ koo seq te muy màggalu Mbàkke Kajoor nga xam ni saa su ñëwee nii ñu ko tàmbalee ba bañ màggale ba ca suba sa ni nga koy ànd ak ñun ci ay téléphone di laaj lu manqué ak lu manqué wu loolu lépp nag ci ndigal seen i kilifa muy ministre de l'intérieur premier ministre président Macky Sall lépp luñ mas a soxla itam wax dëgg yàlla ci màggal gi am nañ ko ni ñu ko bëggee kon màggalu daaw gi am na ni ñu ko bëggee ñu la ci sant di la gërëm di seereel itam kilifa yi say kilifa sant bu ñu leen sant ak ngërëm bu ñu leen ngërëm ndax waxuma sax màggal gi waaye ni ngeen nekkee ci département Kébémer ak arrondissement Darou Mouhty nekkeen nekk ngeen fi nekkeen woo xam ni dëppoo naa kilifa yi ni ñu ko bëggee dëppoo naa Cheikh Sidi Makhtar ni ñu ko bëggee lépp lu xew ci njaboot ngeen jógal seen bopp sol seen tànk dox ci ba mu sedd guy yi loolu leen ci sant di sant seeni kilifa di ñaa yàlla yokk leen bi barakati rasulillah ci barke Cheikhul Khadim ba ay fan yu néew yàlla na yàlla yokk yéen ñëpp yàlla mën na ko yàlla na ko def màggal gi nag muy bis boo xam ni dafa am solo ndax dañ ci fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamad Lamine Bara ganee àddina xam nañ ni bu njëkk bi ci jab sëñ Modou Bara mi njëkk nag xalif Cheikh Mouhamad Lamine Bara ba ci sëñ Abdou Aziz Bara dañu daan fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamad Lamine Bara génnee àddina waaye bi Cheikh Saliou ñëwee tasanteeg Cheikh Sidi Makhtar nekk xalif sal xalif Cheikh Mouhamadou Lamine Bara daf koo woon ni ko nañuy fàttaliku bis bi mu gënee àddina ndax bis boobu day bisu bisum ndimbal di bisu faj aajo ndax danañ koy wax jamono bu nekk dañoo wax ni boo dee fàttali li ngay waxoon bokk na ci ak mën a jàngale moo tax duñu tàyyi mukk ci di fàttali loolu ñi jëkk jaayanteeg Sëñ Tuubaa fii ci Mbàkke Kajoor en 1883 nekkoon ñeent fukki góor yàlla bi Serigne Touba di ñibbi Mbacke Kajoor ñu ànd ak moom dem Mbacke Kajoor Serigne Touba bàyyi ko Mbacke Kajoor ñu ànd ak moom ba mu sanc Daaru Salaam sanc Daaru Alimul Xabiir sanc Daarul Mannaan sanc Daarul Minnan sanc Daarul Rahman muy kër sëñ Chouaib ba sanc Daarul Xuddus bi mu sancee Touba en 1887 ci la woo ñooñu ñëpp ba ñëw tànn Cheikh Moulay Baara 87 bi mu sancee Touba ba 91 sëñ baar gane àddina dafa woo ñooñu bañ ñëw mu leen liggéey na wut ci seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen ko kon loolu moo tax sëriñ Saliou ni bisu ndimbal la bisu faj aajo kon jox sëriñ Cheikh sëriñ Maxtaan ndigal ni ko dañuy fàttaliku bi bisu gane àddina boobu kon loolu mooy màggalu Mbàkke Kajoor moo ko waral fii ñu koy fàttali koy di Mbàkke Kajoor muy euh, berceau mouridisme li ko waral mooy yoonu murid fi la juddoo Momar Anta Sali moo ko sancoon en 1880 bi mu ko sancee itam mën nañu wax ni daara la woon dafa daan tarbiya waaye palais de justice la woon ndax fi la daan àccal atelier Joor lépp lu mas a ajowu ci royaume di Kajoor et Momar Anta Sali nekk fi ñetti at génn àddina fii ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi yóbbu ko deqal gerte denc ko continuer yor daara ji di jàngale di yar ba Sayyiduna Muhammadin Ali salaatu wasalaam fii la jëkk a feeñu Seexul Xadiim ci liñ xam ci li sëñ bi bind ndax fi la génn ab yooyoo ni shaafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama bi rab rabbi asxaabaka bi himmatin wala tarabi mi dar si faqat mu ni yonente bi ali sallallahu alayhi moo ma feeñu ni mën naa ànd ak nit ñi ci pas-pas boo xam ni ku ci aw di nga ànd sa te bañ a yem ci am njàngale kese kon bis bu fii lañ jàpp ni fi la sayyiduna Muhammad ali sallallahu alayhi wa sallam jëkk saafoonte rek ku tedd ki ca booba ñu jëkk jaayante moom kon fii lañ jaayante ak sëriñ bi ab taawam itam soxna ja fii la ganee àddina moom Cheikhul Khadim Lat Joor itam fekk na sëñ tubaab bi en 1886 bi nga tase ak tubaab bi fii ci dettale moom it ci dëkk bi la amee xam nañ ni tey euh, Cheikh Sidi Mokhtar bi nga xam ne mooy Cheikhul Khadim di xalif général des mourides ci dëkk bii ci la ganee àddina Cheikh Mouhamed Lamine itam 1913 la ko Cheikhul Khadim yabal jaarale ko ci borom daaru mu ñëw fii fekk si xaritam mbokkam di waajur ci moom di maam Amar Fall Mbacke mu nekk ci biir këram ñu yaatal ko fi mu nekk fi ba këram àgg mu soog a dem ci këram ba muy dem itam daf ni am naa ci kër gi juróom-ñaari weer yoo xam ne mosuma fay am lu ma naqari sama kër àgg rek moo fay dem ak njabootam ñoo fi di teew muy sëñ Cheikh Kajoor teewal sëñ Abdul Xuddus kon dëkk boobu lañuy ñuy defe màggalu Mbacke Kajoor muy dëkk bu am solo ci yoonu murit am ko ci senegal kon monsieur le préfet loolu mën naa ci tënk rek mooy bis bi di màggalu Mbacke Kadior xam naa nag euh, dafa mel ni daaw euh, tënkoon nañ fi lu toll ci fukki point ak benn euh, ni ma jiitale cant yi ci yow noonu lañ sant mbooleem chef de service boo xam ni daaw ñëwoon nga fi liggéey si amoon nañ satisfaction totale muy bu njëkk bi mooy sécurité lañ njëkkoon a wax lañ fi njëkkoon a waxtaane euh, waxtaane woon nañ fi itam lu jëm ci wàllu sapeur pompier wàllu AGEROUTE wàllu Sénélec wàllu hydraulique tamuy ndox wàllu eaux et wàllu élevage service d'hygiène communication muy la presse wàllu wér-gi-yaram wàllu assainissement ak wàllu commissariat alimentaire waaw jërëjëf ginnaaw ba ñu delloo gërëm ñi fi teew ñépp te sant suñu xarit suñu sëriñ suñu wëllëre suñu Cheikh Thioro ñi nga xam ne moo jiite commité d'organisation dañuy wax ne ñëwaat nañu fi ren yàlla sant yàlla ba mu ñuy dellusee ñu war saytu CDD yi ak yi mu àndal yépp pour jublu ci màggal gi am na sax ku ne sànq gàmm gi wane sama xel juumoo ndax boo ne dañuy màggal gane àdduna sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Baara a yaakaar naa ne yonent bi dikk na sallallahu alayhi wa kon boo ñu xam ne ñu ngi ci ñaareelu sax ñu ngi ci ñaareelu ñu ngi gàmmu nañ deeñ màggal waaw am naa yaakaar ne loolu yéen a gën a xam ñi ma fi àndal nag tey fekk ci bi comité d'organisation bi fas nañu yéen ci wàllu courant def sax loo xam ne mosuñu ko def maanaam bàyyiwaale xel nekk gi sëriñ bi nekk ci Mbàkke Kajoor te ordre saa bi buñ ko daan wax dañ naan rek ci juróomi fan balay màggal gi ak juróomi fan bu waagal gi weesoo waaye léegi bu sëriñ bi ñëwee ci dëkk bi de ordre de tàmbali la kon donc dèjà yokkute fas yéene nañu yokk ci lool ba ñaar fukki fan ci weeru février courant dafa coupé loolu nekk na loo xam ne lu ma neex la te incha allah yàlla dee ci jàppale incha allah ba équipe bi fi war a ñëw tam ñëw fi ndax xew diine courant da ci am solo courant mooy tax télévision bi courant mooy tax internet bi courant mooy tax sax robinet yi du doon dem du yàgg courant wër gu yaram li ci làmb bëri ah, am na solo ci maatal euh, lu jëm ci jóge ci courant jëm ci ndox ndox mi tam am naa yaakaar ne dañ am lu ñu mbas am ndaxte am na ay forage yi nga xam ne bëgg nañ mu tàmbali dox te am na yaakaar ne loolu ñëwee euh, dina dina ci am solo camion yi ñu amoon daaw dañu xabaar bâche yi ma manqué woon daal dañ ci teel a taxaw par fépp fu bâche ci wàllu wér-gu-yaram tam am na yaakaar ne amoon nañ un million cinq cent daaw garab ren dañuy ñaan un million cinq cent yooyu ñu amaat kaw la amul ko ndax tam li may wax la rek day fexe dañuy fexe ba màggal gi nekk xéwal pour ñëw ku ñëw feebar dab la fi wala sax ko fi ginnaaw la feebar ñu euh, mu nekk fajukaay aaju boo fi ñëwee sax indaale fi feebar rek yàlla may la nga daje ay technicien ak ay ay spécialiste ñu faj la nga dellu si kër loolu nekk na li tubaab di wax impact lu baax la ci wàllu wér-gu-yaram te gouvernement bi loolu mooy mbébétam fex ba bérébu jumtukaay jegeñ population yi loolu la bu ko màggee gën a mën a yokk itam loolu sant yàlla ci wàllu kaaraange nañ ko fi itam dinañ la amoon naa dina yokk malgré euh, woon nañ leen feneen waaye fexe nañ itam amul benn euh, euh, tiis bu ñu fi mënoon a tee wala ay raccourci wala ay gaañante ren Touba yokk na ci wàllu boobu. dinañu wàll si ba nga xam ne euh, day am sécurité bu doy euh, fexe ba tam waxuñ ci sax si biir débat yi waaye mesures yi ñu jëloon daaw rek la ñuy jëlaat rek ndaxte tam jaruñoo xeex ndax en général jëye yi indi si ñoom lay jógee waaye ma profité waxaale ne fi leen doon yemale ci buntu dëkk bi daal nañ leen fa yemale ba màggal gi passé jàmm loolu daal yaakaar naa ne euh, comment naa ci bàyyi xel ci wàllu accueil wàllu accueil yaakaar Euh, sëñ bi junj lu am solo ndax président de la République bëgg ba këru diine daal di am jumtuwaay yëpp yu fa war a am te xam nga centre bi nga xam dina mën a accueillir gars yi loolu dafay wane ne président de la République bàyyi na xel Mbacké Kadior yëpp xam nga programme la bu nga xam ne yëpp maanaam dëkku diine ndax euh, bi nga xam ne lu fa war a am dinañ ko fa def ba mu nekk dëkk yoo xam ne dëkk yi mucc ayib la waaye Mbacké Kadior da ci raw ndax mbaa kajoor fii la lépp tàmbali wax naa ne sax daaw man ba may ñëw ci màggalu sëñ Mbàkke Kajoor gi gis bàmb laa tàmbalee dafa baax nit ñi xam ne Mbàkke gi dafa war a gën a fés ci wàllu xam-xam ñu xam ne daara la woon daara war na dellu si parce que réewu xam-xam moo koy rek donc daara jooju dina jël war na dellu si ñu def ko bërëb destination ku war a jël ñu fi mag ñi daan bàyyi ko fu ne ci àdduna di ñëw di sàkku si xam-xam xale yi di fi ñëw di sàkku xam-xam te am naa yaakaar ne centre écologie bi sëñ Mbow bi ngeen di war a def loolu rek ab tàmbali la ci parce que du du ja jàng la tam loolu fa war a loolu fa war a am donc ñu ngi leen ciy gërëm di wax ne waa Ageroute bëgg nañu tali bi piste bi ñu defar ko ba nga xam ne liggéeyu Gilis Bamba bi dina gën a gaaw su gënee gaaw yaakaar naa ne fii dina nekk beneen destination beneen xar kanam la Mbacke Kajoor di yore ba ku dina ko xam wala ku ko xam ba pare bëgg di fi ñëw même bu dul gaaw di def ay gëstu mu nekk am musée di gëstu ci yoonu murid lan naka lay doxe fan la jógee loolu lu am am solo la donc ñu ngi koy rafetlu bu baax di am yaakaar ne yàlla dina matal leen waa Croix-Rouge itam xëj na waxuñu leen waaye ñoom dañuy bokk ci wala santé ànd nag bu mag ñoom tamit dina jàpp ci ci ci ci màggal gi ànd ak waa waa santé euh, bañ fàtte aussi ne ren am nañu euh, sapeur pompier euh, Kébémer mu nekk lu bees euh, ànd ak adjudant Dew nekk ku xare ku jàmbaare benn fi nga ay nit yu doy ànd ak gendarmerie ànd ak force de sécurité yi quadrille dëkk bi ñu ànd liggéey liggéey bu mucc ay oto yi ñu fi laaj dañ leen ko jox comité d'organisation bi sëñ Bassirou de leen dimbali dimbali leen ci ay oto ba nga xam ne yaakaar naa ne bi ñuy jooy ay moy yi loolu daal incha allah am na yaakaar ne euh, lépp dina yem pour wan leen rek ne administration bi fas yéene na ànd ak comité bi pour ñu am màggal bu nga xam ne bu exceptionnel bu mosul am xëy na lépp mat dina jafe waaye kenn du jooy dara dëgg yàlla ku fi ñëw di xam ne fii euh, engagement bu wér moo fi am liggéey bu mucc moo fi am taxawaay bu mat sëkk moo ci am loolu daal laa mën a seede euh, ñu fas yéene nag euh, xëy na laaj sëñ bi juru euh, seere CRD bi kañ lay doon ndax ñu mën a buñ ci jógee rek mën a def lettre yi teel ko def mën a jubal nag ci ci ci lettre yi ak suivi bi suivi bi nag dañ ci ànd ak comité bi bi nga xam ne moom la seen bi jiite ndax problème yoo xam ne junj lañ ko fii dañ koy bés ni ki tey lañuy dat lañ ci commencé dox di ci jàpp di def ay réunion topp ko ba bésu màggal bi loolu ma ñu may ñu am màggal boo xam ne màggal bu mucc ay lay doon euh, sëñ bi donc ci loolu rek laa amaloon ma ci wax ci biir wàllu wax jàpp que datu ne le huit la le huit mars mooy datu màggal kon ba bésu CRD rek la xam suñ ko xamee euh, xëy na balay balay balay ñuy tasaaroo jox bëtu CRD gërëm ku tedd gi préfet di nuyoowaat tey sant ci turu Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi Makhtar mii nga xam ni mooy suñu mag liggéey bi itam moo ko jiitee jot leen nuyoog Serigne bi Cheikh Sidi Makhtar Mbacké xalif général de Mouride moom mi nga xam ni mooy màggal te moo wootee màggal woote nit ñi ñu am nañ njaboot gi yëpp niñ ko limee sànq ci njàlbeen njabootu Cheikh Mawalé baax di ñoom ñëpp ñu ngi fi ànd seen ñoom ci liggéey bi ak taalibe yi kon préfet ma ànd ak ñoom ñëpp nuyuwaat leen yow ak ñi nga àndal bàyyi ko département Kébémer ak sous-préfet arrondissement bi Darou Mouhty ak ñi ma àndal ñëpp ñu nuyu leen ci turu sëriñ bi. sant leen gërëm leen ci weesu yëpp sant yooyu ñu koy jaarale ci yéen jaarale ko ci ministre de l'intérieur jaarale ko ci premier ministre ba mu àgg ci président Macky ndax diiru bi suñu borom dogalee mu nekk ci bopp senegal fàttewul njabootu Cheikh Mouhalim Bara fàttewul Mbacké Kajoor ba daaw joxe na ay ndigal euh, ministre Omar Youm boobu moo nekk ministre de la culture locale moom la fi yebal ni ko demal ci sëriñ ba nga yenn ko xool Mbàkke Kajoor lu ñu fa mën a def ñu def ko bi mu ñëwee li ñu njëkk xool mooy wàllu ndox mi ñu yokk ci juróomi kilomètre am na benn centre sociaux bu ñuy def fii itam yoo xam ne su àggee jàmm dootuñu am ay jafe-jafe ci wàllu dalal ay gan dootuñu am ay jafe-jafe ci yu mel ci wàllu ay euh, réunion loolu lépp ñu ci sant baax di gërëm di ko ñaanal suñu borom dimbali ko ba yéene di mu am Sénégal mu àgg ñu leen sant seen cant bopp yéen itam ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ni yéen koy taxaw fii ci département Kébémer ndax waxuma sax màggal gi waaye xëy na njaboot bi du ñàkk ay réew du am seen biir waaye fu ak réew amee ngeen jël seen dàll di dox ba jàmm am ci kon ñu leen di sant di ko seere seen kilifa di wax ne sëriñ bi moom li mu bëgg ci yéen yéen a koy def ci jikko ak liggéey kon ñu ngi ñaan ci barke Cheikh Mouhamadou Lamine Bara suñu borom yokk leen yoon suñ suñu borom e ci li ñu sumb itam muy màggalu Mbàkke Kajoor ñuy ñaan yàlla suñu borom mébét yëpp ànd ndax màggalu daaw bi xëy na boo yoree ab liggéey sëñ Moussa jiite liggéey bi ñu yor ko mënoon ni baax na waaye ñi doon seetaan ñëpp daaw dañoo wax ni màggal gi am nañ ko à 100 pour cent ñëpp loolu la ñu wax kon nag loolu moo am. ñuy ñaan yàlla suñu borom màggal ren bi gën a neex màggal yépp ci barke Seydina Mohamed ak barke si amoo leen li ñuy sàkkuwaat sécurité bi ñu waaj gën a bàyyi xel wàllu jakartaa yi ñu bàyyi ko xel ak oto yi si charge wàllu yi xam ne itam mooy wàllu laissez yi amoon nañ ci ay jafe-jafe ñu xool itam dinaa waxtaan ak moom ñu xool ni ñu mën a defee boo dee gën a mën a yaatu wala leneen def ko ci waaye daal sant nañ bu baax a baax màggal gi muy lu am solo ci yoonu murit ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mooy ñetteel doomu Cheikhul Khadim moo ko yabaloon fii en 1914 1913 1914 ni ko demal nga wétali ci sa bokk sëñ Amar Fall Mbacké ñu yaatal ko mu nekk fi ci ndigalu sëriñ bi nekk ñoom nekkin wu rafet ñoom ñu sant leen njabootu maam Amar Fall ndax seen waajur nam nekk woon ak Cheikh moom leen baara ñoom noonu lañu nekk ak sëriñ bi noonu lañu nekk ak njaboot suñu baara baara gépp bis bi nag mën naa leen wax ni leen dañ ci fàttaliku Cheikh moom leen baara bi mu gën àddina ndax bi ko yonent bi am di isa salaam feeñoo ni ko awal ci yoon wi nga xam ne moo yoonu pas-pas wi nga xam ne ku ci aw di nga àgg ci sa borom te loolee jaayante mooy tax nga def ko mooy joxe sa bopp ni ko saxaaba ya defoon ak sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba mu wax ni inna laa shara min al mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna jaayante ak jébbalu jëkkewul ci Sëriñ Tuubaa waaye ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam yàlla digale woon saxaaba yi jaayante yonte bi alayhi salaatu Sëriñ Tuubaa nag loolu rek la doon yeesal ba mu naan fii lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatahu xarraa wa inni ahmadu diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu indal ilaahi wa bihi nu jaddidu sëñ Tuubaa ci loolu la nekkoon yeesala sunna sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam sëriñ bi sax mosul wax ab tariixa danaa wax naan sunna sayyidina Muhammad laa doon dundal loolu sëñ Tuubaa mas di wax saa su nekk kon biñ jaayanteeg moom te jaayanteeg mooy àgg ci borom bi ak am li nga bëgg sa borom ñeent fukki góor yàlla ñoo jaayanteegu ak moom fii ci Mbàkke Kajoor ñu ànd ak sëriñ bi dem ñibbi Mbàkke Bawol ba sëriñ Tuubaa jógee Mbàkke Bawol sanc daaru salaam bi mu sancee daaru salaam fa la ko yàlla joxe Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko fa Cheikh Mouhamadul Fadil muy sanc di sanc ba sanc Touba bi mu sancee Touba ci la ko yàlla joxe Cheikh Mouhamadul Lamine Bara mii ñuy fàttali ko tey bisam boobu ñi jaayante woon ak moom ñeent fukki nit lañu woon mën nañ cee lim sëñ Abdourahmane Ndour mën nañ cee lim sëñ Manoumé Xabaan mën nañ cee lim Cheikh Ibrahima Sarr mën nañ cee lim maam Cheikh Ibrahima Fall mën nañ ci lim ñu baree baree bari keroog sëñ Tuubaa da leen woo ba ñu ñëw mun leen li ngeen doon sàkku ci seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen ko bi seex moo xam leen baara gane àddina mu jël ko ci ñaari loxoom yi tedd ya yanu ko yar ko di dox diggante penku ak soowu di wax naan xat fàkk kab la xat bas fad la fa durr wala wan na fay jaay yi ñi bëggoon dem ci seen borom jéng yi leen tënkoon ki ko dagg ñëw na lor dëddu na doon fi ñëw te njariñ ñëw na ci bis boobu la amee kon bis boobu la Cheikh Sidi Makhtar di fàttaliku monsieur le préfet fii ci Mbacke Kadior Mbacke Kadior bi ngay fàttalikoo itam wax nañ leen ni mooy le berceau du mouridisme ndax ñu jëkk jaayante ak Serigne Touba fii lañ jaayante ak moom ci Mbacke Kadior Mamor Anta Sy santoon ko en 1880 doon fi jàngale di fi yare di fi tarbiya bi Lat Joor jógee Nioro ñëw Pataar ñëw kër Amadou Yàlla ci la indiwaale Momar Anta Sali ngir mu koy àtteel ak di ko jàngal lislaam bi mu xamee ni ab sëriñ ak buur mun ñëw bokk ab ëtt ci la ñëw sanc Mbàkke Kajoor 1880 nekkoon palais de justice bu royaume bi Kayoor wante am na ay kàngam yu bari yu si jaar suñ Amadou Cissé Pire Amadou Cissé Diamo Iliman Saaxo maam Iliman Saaxo ñoom ñëpp ñëw nañ ci jaare ji jàng fi kon fii barab na boo xam ne barab bu Sénégal yépp la Lat Joor fekk ko fii itam ñu wax leen ni te sër sër maanaam ki mag mag ci waa sëriñ bi muy ab taawam soxna si soxna Fatou Dia fii la gënee àddina maam Cheikh Ibrahima Fall fii la ko fekkoon sëñ Adama Gueye mi njëkk a ci moom mi ngi fii ci àlmeri tëdd Cheikh Mouhamed leen Baara fii la wàcce ab liggéey ñu yóbbu ko Touba Momar Anta Sali fii la wàcce ab liggéey ñu yóbbu ko Dekkale Cheikh di Makhtar Mbacke mi itam fii la feeñ ci jamono kon dëkk la koo xam ni dëkk bu am wàcc la léegi nag itam moo woote magal gi moom sëriñ waaye kenn ku ne dafa am loo mën a sa bopp ak loo xam ne état moo ko mën moo waral préfet ngir bàyyi seen soxla ñëw ànd ak ñun li nga xam ne état moo ko war a def war koo taxawu ngeen ñu ci taxawu waaye weesu yëpp rafet na kon ñuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala màggal gii gën a bokk ci magal gën a sedd gën a am jàmm xéwal dotti ko ci kenn bañ cee gaal yi itam barke ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant yi taalibe yëpp muy daayira yi muy kenn ku ñëw sant la presse du ñu dañ mukk ci ndax mais préfet dina la wax leen fii gisoo fi RTS te pourtant bind nañ leen ni ma bind ñëpp bëgguñu sax wax ci loolu ñu naan dañoo ñaxtu waaye li ma ci mën a wax rek mooy ñu ngi gis ñëpp presse privée la xanaa le soleil moo fi nekk nga xam ne ñu bokk na ci presse publique waaye gis ñëpp ay privé lañu ay télé lañu ay rajo RTS ñëw na ñi ngi mi nekk RTS Mbacke moom it ñëw na ci wàllu public RTS laa gis rajo gis ak Le Soleil ñoom ñëw nañu waaye télé bi ñëwuñu saa su ma xaa def CDD bi itam buñ ko teg mosul am mosuñu ko teg da ngay wax ba sonnee duñ ko teg xaw ma ne la moo tax naa nag bind naa di naa ko leetar comme ni ñu ñëpp waaye gis nga ñëwuñu loolu ñu xoolaat ko bu moo tax ñu def loolu ma sant nag public presse bi nga xam ne ñëpp ñëw nañu fii moo xam télé yi la moo xam internet yi la moo xam rajo yi la moo xam la presse écrite wax dëgg yàlla dañuy dañuy ànd ak ci bis bi ba maanaam ko te kenn teguñu ci dara kenn laaj ñu leen bu baax gërëm nañ leen di ñaan yàlla liggéey bi àgg ak jàmm ak salaam bi barakati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bala ñoo jeexal ma ànd ak njaboot moo Mouhamadou Bara gi yëpp santaat Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy suñu mag di taawu sëriñ bi di taawu kër gi jiite liggéey bi nga xam ni ni ma koy waxee ak mu nekk jikkoy sëriñ bi rek la yor gis ngeen tàmbali nañ liggéey bi sax te agseegul bi mu agsee li mu njëkk wax maa ngi leen di jéggulu la wax te mooy suñu kilifa kon nag ñu ngi koy sant ci jikko jooju nga xam ni jikko sëriñ bi la ñu makari ak sëriñ bi la moom mu làmboo ko sëriñ ñu lay sant di la gërëm te xam ne say bay fa rek lañu lépp lu ñu def lu ñu fii def rek yow lañ ko defal kon ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant sa njaboot gi ñoom ñëpp ñun ñëpp samay mag lañu ñoom ñëpp ñoo mag te koo ci woo mu bàyyi ay soxlaam ñu ànd seen ñun ci liggéey bi mais après sëñ Sidi maa fi mag moom <laughs> maa la wax sëñ Aziz dégg nga loolu ñu sant ci muy lu neex ndax sëñ bi rek la doon ñaan njaboot gu ànd nekk benn nekk benn moom daal moroode ñëpp nekk benn loolu la doon ñaan am nañ ko kon ñu sant baax a baax di gërëm. waaleykum salaam wa rahmatulah.